waral bëss bi tay il faut mu wax ko li waral bëss bi moy sargal le président Macky Sall man musuma def politique j'ai commencé à faire la politique avec la te loolu lu ko waral moy dama ko gis ak teeyam musul wax en tout cas man musuma dégg Macky Sall tenir discours bo xamné ko dégg rek ah ki kat. li mu wax ni tey waru ko wax muy muy ay kàddu yu ñagas jëmale ko ci doomu adama ak fa mu gënee métti nag fa mu gënee métti nag forom bi amoon na ay jafe-jafe au niveau du parti mu ànd ak ngoram ànd ak yaram ànd ak tegginam ma gis ko gis sama bopp ci moom may nag man mosuma def politique mais man daal kii doy na ma pour ma ànd ak moom def politique loolu laa def. mu ñëw teg programme boo xam ne nii convaincre tous les sénégalais donc ñun bu ñu defee politique tey yàlla ak Macky Sall moo moo tax. président def na loo xam ne nii tey bu ñu ko fi doon lim duñ di fi jógee tey boo xoolee la route Fatick la ku nekk xam na nu mu meloon tabax na ko defar na ko la route Dingiraay Nioro Kër Ayib defar na ko wala defaru ko dañu fay pour dem fi mu ne tey pour dem pour dem Gambie dafa yomb Kër Waly Ndiaye Sokone defar na ko. tey autoroute Ila Touba bi tey ñëw na ba Mbour ñun fa la ñuy jaar maanaam tey fii fi fii ak fii ak weer rek boo jógee Dakar di dem di dem boo jógee Dakar di ñëw kaw doo def deux heures si Kaolack kon bu loolu bu amee ñun bu boobaa incha allah chaque di dinañ jógee Dakar Dakar ñëw julli si ajuma añ ba pare delluwaat Dakar te guddi di jot loolu yokku loolu yàqu yokkute loolu président suñu sant def na président nee na bugg na courant bi wër Sénégal yépp réew taax yi courant pratiquement à quatre-vingt-dix pour cent am na mais réew àll yi des na te mu ñëwee ba léegi am na jéego yu bëree bëri bëri yu ci am te ñu ngi ci tey boo demee am na dëkk yoo xam ne tey amuñu woon courant yu bëree bëri bëri tey am nañ courant plus de trois mille et quelques villages sont électrifiés depuis que président Macky Sall ñëw te loolu lu ñu war a naw lu ñu war a tàccu la parce que ñoom aussi dañu bokk ci réew mi lañ ko ne di ko jàppale sargal bi moo ko moom parce que moo ko liggéey bilan moom wane na ko bilan joxe na ko te aussi li mu simb woon li mu simb nekk na simb boo xam ne tey bu ko eggalee Sénégal dina dem sur les rampes de l'émergence et yal na ko yàlla def ñun ñëpp ñu fekkee ko bu may jeexalee sama wax mooy di gërëm encore xale yi nga xam ne ni ñoo ma jàppale

pour nous ànd au Sénégal pour nous. ànd au Kaolack. la convergence des cadres de ñëw tey fii ci Kaolack ànd ak une très forte délégation que ce docteur Diouf ci le président Macky Sall lu ñu def fii ci Kaolack danañ ko bientôt à Dagana Nous ko euh, très très bientôt à Mbour à Guédiawaï et ailleurs. mais Kaolack est un carrefour Kaolack mooy dëkk boo xamante ne ah man day xam naa si dara képp ku fi jaar doo rëccu li nga fi jaare buur géwel xam nga li ma wax bon nag maa ngi remercier waa Kaolack parce que je réclame que je suis le lébou le plus saloum saloum Sénégal docteur Diouf li nga wax pour par rapport au PSE Texidara par rapport aux initiatives au programme du président dana les LOL, moo damay parce que les nga si wax il n'y aura pas de catastrophe parce que le président Macky Sall a remarquablement gagné les élections 58 et dans sa maturité, dans sa clairvoyance, dans son sens de responsabilité, a appelé les Sénégalais au dialogue national. Il n'y aura pas de catastrophe. Le pays va bien au plan économique et le dialogue est en train de s'installer pour mettre en place les bases de la stabilité politique pour nous installer définitivement sur l'orbite de l'émergence. Il n'y aura pas de catastrophe. Donc, Monsieur l'ex-Premier ministre, a fait une erreur manifeste d'appréciation. Mais quand une erreur est volontaire, quand une erreur est tirée d'un certain sens très surprenant de, je n'ose même pas sortir ce mot, mais je demande à ce qu'il soit plus serein dans sa prise de position. Les personnes qui sont en face de lui sont des Sénégalais du peuple, sont des Sénégalais qui ne sont pas nés avec la cuillère dans la bouche, sont des Sénégalais de la pêche, de l'agriculture, de l'élevage, sont des Sénégalais qui ont fait le mouvement Nawetan, sont des Sénégalais qui ont joué dans la rue sans sandales, ce sont ces Sénégalais qui aujourd'hui ont la responsabilité de ce pays et qui savent où se situent effectivement les urgences et les préoccupations des peuples sénégalais. Donc, nous lui demandons de savoir raison garder et de ne pas affoler les populations parce qu'en réalité, il ne fait que tirer cela de sa propre imagination parce que c'est ça qu'il veut. Mais ce Sénégal que nous avons sera un Sénégal bientôt pétrolier, un Sénégal gazier, un Sénégal qui s'installe de manière définitive sur l'orbite de l'émergence. Voilà la réponse que la convergence des cadres apporte à l'ex-premier ministre qui aujourd'hui est dans une tentative de manipulation de l'opinion qui ne passera pas. Je vous remercie.